Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor. asalaamaaleykum mbokkanteenoot yu seetaan Setsima TV ñu ngi leen di nuyu bu baax tey nag ñoo am mbégte dalalaat ci seen beneen émission référence référence nag tey ñu ngi ñëw fii ci géejawaay donc seet si koo xamante ne bii référence la comme son leen l'indique ñu koy wax Yaay faatu ñaa euh, madame mbay Yaay Fatou ñaa madame mbay di ndaw loo xamante ni bi ci biir émission bi dinañ leen xamal leen te kan mooy boobu les références yaay Fatou ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay ma seet ma di profité ci occasion bi aussi di nuyu ñiy seetaan ñëpp di nuyu samay mbokk samay famille nga xamante ne ñoom ñoo may taxaw ñoo may jàppale euh, di nuyu sama jëkkër par la même aussi di nuyu samay euh, samay ñi may liggéeyal ñëpp. d'accord euh, yaay Fatou ñaa ngi noonu madame Mbaye donc bu ñu waxee référence nag mooy koo xamante ne bii Euh, tey bu ñu ko tegee ñëpp dinañ ci mën a jàng Yaay Fatou bu ñuy tàmbali émission bi d'abord li ma bëgg laaj mooy Yaa Fatou fan la juddoo euh, kan mooy yar Yaa Fatou ba ma ba mu mën a nekk tey référence ci fan la bokk ak naka la doore li nga xamante ne bii mooy carrière am wala enfance am. Euh, Yaay Fatou man maa ngi tudd Yaay Fatou bu Nday ñoo bokk ci famille bu am solo ci réew mi laay wax sax si ndar sama pàpp ak sama yaay yëpp ñoom waa ndar lañu famille Mundaay ñag Mundaay nit ñi xam nañ leen bu baax a baax a baax euh, tagguma sama bopp waaye euh, sama maam lii di sama maam bu góor mooy Mundaay ñang Farapenda di euh, sama bàjjen papaam moo doon premier canton ay sama sama sama sama pa sama maam nag def na ay jalooxe ndar ba boo waxee ñang ñang bu ndaay ñun duñu wax ñang ñang ñang baalo ñun ñang bu ndaay la ñuy wax waaw ñang bu ñang bu ndaay farapenda lamsara buur jàkk euh, yaay Fatou man euh, si sama papa ak sama yaay ñoom mën naa ne daanaka daal ñoom laa xam ñooy sama royukaay tey bu may wax sëriñ man tey damay jital sama yaay parce que macha allah nit ko baax la dafa jël temps am yëpp éduqué ñu comme cela se doit ay jàngalekat lañu. moom ak sama papa yëpp dañoo jàngale ba retraité sama papa il était instituteur il a fini par directeur d'école sama yaay elle était institutrice aussi mu finir par euh, comme euh, euh, secrétaire nu mu tudd surveillante général au niveau lycée Parcelles. mu nekk ah, kon kon kon kon mën nañoo wax ni intellectuel da nga koo da koo judduwaale ndar nga juddoo wala fii ci Géejawaay. laa juddoo Dakar laa juddoo Dakar laa juddoo waaye man ndar daf bu mës a neex laa jàngee université Gaston Berger. Euh, fa laa jàngee waaye daal sama repère ak sama lépp ci ndar la man ndar booy wax bu may juddoo ma fa waaye su may wax sax dañ naan ma ma façon d'être ak ni may nekkee dañ naan ma yow ab ndar ndar bu rëy a rëy nga. sa enfance fan nga ko defee. Euh, maa ngi ko defee fii euh, Dakar Dakar laa d'abord Pikine parce que sama papa ak sama yaay foofu lañ doon servir sama papa école 3 la nekkoon ñépp ko xam monsieur ñaaw sama yaay Awa Touré école 8 après ñu ñëw fii golf depuis 86 ñu ngi fii golf. d' donc mën nañoo wax ni yow doomu golf nga alors euh, sa ay études euh, nga jànge euh, ba dem université Gaston Berger mais juste après. après bëggoon naa wax benn affaire bu am importance boo tëb parce que si sama étude man mosuma jàngee école privée. mu nekk une fi mu nekk fierté ci man. c' est vrai que sama doom fi privé laa koy dugal waaye man fierté la ci man mosuma jàngee école privée maa ngi jàngee Ogo Diop bi macha allah Ogo Diop bii laa jàngee ñaay bi nii laa doon dox. dox bay bëgg de ak xaaxaam yeeg yooyu des fois ma jël ay risques des fois ma tasante groupe xaj ay xaj ak yooyu yëpp ma ragal ci daal di dëpp dëppaat dellu. pour dire que euh, fa laa jàngee te terewul macha allah ñu yóbbu ma euh, lycée technique de la Fosse commerce ma def série B. te commerce ku ne xam na fa ne euh, ku fay dugg da ngay am moyen bu baax moo tax pour dire que. aw ma dara daal lu ma ñeewee ñu jógee secteur euh, si si kii si école privée yi. alors euh, euh, donc kon mën nañoo wax ne yaay Fatou dafa nekk koo xamante ni bi dafa jaayante dëgg-dëgg parce que itam ku fekkee ne dafa jànge ci public pare jaar de la force pare fexe ba dugg ci yenn université yi jàng maanaam mu mel ni sa sa ndaw aussi danga ko teel a ñafe. waaw man moom dañuy wax naan. Euh, gis nga buñ la sa buñ la buñ la sa ëmbee mm-hmm. macha allah sa yaay sentiment bi mu am moom mooy nekk ci yow parce que góor la bëggoon te effectivement man je me suis toujours comportée comme góor euh, même avant sax garçon manqué lañ ma doon wax te loolu je pense que ça a beaucoup joué ci man parce que dama nekk xale mais bëgguma ñaan dama mës a nee nañ rëyu baaxul nag mais man sama parce que dañ ma doon babat wax lan mooy ñang mbundaay sama tur dafa am mbundaay chaque fois ñu ma koy répéter ba loobu laa garder ma am sama fierté ma am sama fierté du ma ñaan bu ma amee tout argent de poche dama si doon góorgóorlu par exemple sama papa yi dañ doon def ay grand place dama doon góorgóorlu def ci beñe par exemple defar beñe euh, di leen ko jaay mu nekk marché ci man ñu tuddee ma ci waa koñ bi doon ko ñam naan ma i beñe te li yàlla di def un mois après au niveau de de la fosse ñu choisir ma pour ma dem représenter du Sénégal pour benn euh, concours bu amoon foofu énergie environnement développement ma dem ci ba euh, Oslo après ma dem Stordal Norvège. donc di ko sante yàlla mais tamit euh, man benn problème laa amoon ak sama sama yaay sama waa kër yi dama tayaloon na liggéey liggéeyu kër dama ko tayaloon. donc man je préférais faire autre chose sama yaay elle était institutrice mais en même temps da doon ñaw donc maa koy passé le renfort maay jënd bouton maay télé très tôt xale man loolu daf ma mosoo nekk sama passion ma dekk di ko jàppale et tout ça après euh, ni nga koy wax a waxatee ma jàng ci tamit nu ñuy tricoter. ñu ma doon wax naan ma yow da nga am jikko tubaab man bu nit ñi dee def gauche man damay dem droite di tricoter je tricoter de am na ay waa koñ bi sax ñoo xamante ne des fois maa leen di expliquer. nan la ñuy defaree euh, tricot bi pour loxo bi juste pour dire di def ay maay yu rafet te alors que kenn jàngalu ma ko benn mère moom ma mosoon jàngal maay may maay di dem ma commencé di ràbbal sama bopp pour dire que man j'aime pas perdre mon temps lu may def rek day fekk daf ma si amal njariñ d' accord alors kon mën nañu wax ne jom ji nga xamante ni bii yaa faatu am na ko euh, lu euh, nekkoon ci moom la bi mu dee xale bu nu euh, weesoo enfance wala bu nu weesoo parcours ci wàllu école élémentaire rek lycée Delafosse nga pare dem jàngi université Gaston Berger donc juste après fan nga jaar. dama dem Gaston Berger j'ai fait Euh, avant euh, j'ai fait droit ma def euh, droit bi ma defee droit après deuxième année ma spécialisé en sciences politiques léegi ba jusqu'en classe de licence ni nga koy waxatee si la amee sama licence fii après j'ai décidé de partir en France après bi ma demee France ma dem Lyon laa nekkoon Lyon j'ai repris sama licence parce que on me disait que Sciences Po Sénégal ak bu France bokkul fa laa après beneen licence dama tardé sax premier semestre bi mais au moins j'ai pu me rattraper deuxième semestre ba jàll année boobu après j'ai am sama masteur en relation internationales après ma am sama master professionnel en francophonie mondialisation qui me fait bac plus 5 mais man euh, foofu dama fay taxaw tuuti parce que man fii euh, Sénégal laa gënoon am euh, laa gënoon am opportunité daanaka daal dem France bi ma doon xaacu noonu di def man pour man def ma tardeel parce que fii première année peut-être la la mës a reprendre sama première année droit mais bi ma ko reprendre dama teg ne dootuma ko reprendre juillet lay jàll chaque jour et c'est comme ça que ça s'est confirmé ba en classe de licence juillet lay jàll chaque fois ay en classe de licence sax déjà dañ ma dañoo amoon benn convention bu ñu signalé woon ak ministère affaires étrangères ñoom ñoo ma jëloon stage ñu jël ma stage foofu ma pare sama ma pare sama sama juillet bi rek ma commencé stage affaires étrangères j'avais un bon encadreur mooy euh, Coly Seck mu nekkoon euh, directeur au cabinet wu Mankeur au temps de Mankeur il est euh, diplomate nekkoon sama encadreur mu estimé woon mu baax ubbil ma ubbil ma bunt bi yëpp ndeysaan alors lan moo tax nga wax ni France daf la tardeel parce que Sénégal nga gënoon ay am ay opportunité leeralal ñu loolu. parce que fii am woon benn coono si sama université Gaston Berger parce que Gaston Berger ñun foofu nu ñu koy waxatee on était à l'aise man par exemple pour euh, damay euh, bu ma jógee julli euh, jël sama temps dem ndékki bu ma ndékkee dem jubal dem jàngi je veux dire que en l'espace de une heure de temps tu peux faire beaucoup de choses beaucoup de choses nga dem jàngi aw ma woon benn coono coono. ku France coono yi lan la woon. coono yi mooy déjà da ngay nekk xale nga réer xam nga rek idée bi ngay am pour dem ba demee France xam nga yooyu boo demee yow yëpp du dëkk parce que bu dee jàng man fii lañ ma gën a jàngale fii laa gën a jàngee dëgg oui parce que liñ may jàngal moo ëpp importance dañ may jàngal selon samay euh, samay samay institution par exemple par science politique bi dañ may tax ma gën a xam sama réew lan la parce que man j'ai toujours opté pour être parmi les décideurs de ce pays donc man je pense que ne dama dama am rupture Parce qu'en France, on m'a appris plus tôt. C'est bien bon d'apprendre. Hein? Euh, je suis parfaitement d'accord que ne lañ ma fay jàngal mënu ma ko euh, ne baaxul baax na. mais yow da nga bëgg a wax ni euh, jàngu Sénégal moo gën bu France. man de pour man moo ma gënal fi lañ doon gën a jàngee parce que foofu foofu c'est beneen beneen beneen rubrique la beneen beneen façon de d'apprendre la dama mel ne dama recommencer à zéro alors que moi j'étais sur les rails pour ALV parce que sama moroom yi ma fa nekk peut ah nekk nañu ay kilifa ci réew mi ak yooyu man je suis allée dans un autre pays et j'ai recommencé à zéro alors que j'avais la base déjà et c'est vrai que cette base là m'a permis d'avoir d'autres diplômes mais su ma sañoon damay toog damay toog ba gën parce que daal man je me retrouvais mieux Sénégal parce que France j'étais complètement perdue et peut-être que le lien qui me lie avec ma famille c'est ça qui a causé cela ñaata at nga def foofu noonu ci France def naa fa cinq ans cinq ans j'ai fait à cinq après ma def deux ans États-Unis donc euh, diplôme yi nga am France doyul woon mais il fallait que nga dem États-Unis pour yokk. non États-Unis beneen rubrique la woon parce que dama marié après ma am ma am ma nekkoon en état après ma demoon di accoucher ji foofu. d'accord mais bi may demee accoucher aussi accoucher j'ai fait deux ans là-bas nekkul perte de temps parce que man euh, comme j'ai dit rek bëgguma perdre de temps euh, dama ñëw di nu ñu koy waxatee di leet mënoon naa leet ah. comme dama doon létt damaa létt ba veille bu may accoucher chaque jour parce que je me dama xawoon a ragal xaw ma lan moo may xaar c'était sama première fois may may ma nekk en état mais dama ko sant la parce que dama doon létt létt bi moom moo nekkoon sama sama bouée de secours pour que ma mën a nekk di xalaat di xalaat est-ce que euh, li kenn xam daal xam nga rek mbirum mbirum mbirum ëmb et tout ça mais pour dire que je suis fière de le dire que jànq naa mais mën naa yeneen liggéey yoo xamante ne chaque fois foofu laay euh, wax xale yi ne leen lu jot lu lu lu leen donné si seen tànk rek dee leen koy tàmm di ko di ko di ko jël. alors contrairement à beaucoup yaay Fatou dafa préféré moom bi mu jàngee ba may diplôme euh, foofu noonu ci bitim réew dellu si waat Sénégal parce que euh, ñu bëri bu ñu paree fa la ñuy des yow pourquoi nga dellu si. man rek dama mës a gëm ne damay bokk ci décideur u pays bi dëkk bi. te euh, je suis fière d'être sénégalaise. foofu boo jàngee ba pare am liggéey fa la gën a yombee. Euh, mais état euh, États-Unis man li ma fa gisoon doyuma woon. et il était plus pour ma toog fa il fallait que ma bàyyi sama doom fii parce que foofu dëkk la boo xamante ne c'est un peu difficile boo fa amee sa doom te day xaw a compliqué tuuti te sama jëkkër aussi dafa doon dem di liggéey di ma fa bàyyi pour dire que c'était pas du tout évident et man maa ngi doon am xale xale vraiment. di fa am euh, li ma doon létt ak yooyu xam nañ ne le temps yooyu létt doxoon na tuut doxoon na bu baax mais man pour man doyu ma woon man daal je me voyais travailler dans une administration franchement, et je voulais servir mon pays. Ça a toujours été mon option. J'ai toujours dit que je serais la première femme présidente. Actuellement, c'est vrai que c'est nuancé. Manque du lier tout parce que c'est pas évident. Mais j'y crois toujours. J'y crois fermement que mon adam fousserait. gëm naa sama bopp. alors juste après euh, nga dellu si hmm, ban année la déjà. Euh, je suis revenue en 2009. 2009 période boobu euh, mu ngi fekk Ablaye Wade nekk ci réew mi alors naka nga def pour dugg ci politique. waaw bi ma ñibbisee nag euh, ni koy waxatee c'était un peu difficile parce que ñëw naa déposer samay CV mais euh, c'était pas évident du tout léegi nag euh, bi ma déposé sama CV maa ngi doon am sax ay liggéey yu ndaw ndawaan mais un peu stage mais man sama conviction mooy que du ma toog ci kër gi chaque fois bu ma yeewoo rek. damay gé parce que xam nga rek nit bu am tuuti bu am tuuti jom c'est c'est peu compliqué dama ne bu ma toogee fii dañ may yeb ndax lu ñu la wax rek après da ngay mer alors que il n'en est rien du tout c'est juste que dafa amul lu la manqué woon donc pour me rendre utile daawoon naa def ay petits métiers c'est-à-dire que comme genre délégué médical di jaay ay euh, ay ay kii ay matériel euh, yo di ko jaay ay euh, par exemple kii yi cabinet yi ak yooyu boobu temps dañ ma doon jox sama vingt cinq mille bu ma ko jëlee ma dugal ko sama poche parce que man sama jëkkër man euh, après la ma rejoindre États-Unis man maa may maa ko gënoon demin parce que man maa ngi doon létt amoon ak yooyu yëpp déjà donc c'était c'était bien maa man ko doon gën a jàppale donc bi ma bi ma ñëwee Sénégal c'était un peu difficile donc man dama jël euh, dama ne non non du ma toog ndeysaan après si laa doon am su ma amee 25000 ma jël ko wër doxaale ma xamaale dëkk bi ak yooyu noonu kenn du ma xamal dara après su ma ñëwaatee ma ñibbi ci sama kër tranquille comme si de rien n'était. daaw la déranger comme ñu ko bëri ñu bëri ni ñu koy defee jàng naa euh, France cinq ans def naa États-Unis pourquoi mooy ñëw di nekk délégué médical daaw la déranger. non ça ne me dérangeait pas du tout man l'essentiel c'est de ne pas rester à la maison ça a toujours sama été conviction après par la suite euh, laasantel euh, comme dama doon yëngatu avant ma doon dem un peu si politique bi si mouvement mel bi léegi ma sante Koumba Gaye ex-ministre Koumba Gaye mooy euh, ex ministre ex euh, ministre des droits humains xam nga ñoo bokkoon classe à l'université Gaston Berger dañoo après bu mu ñëwee ñu sanante mu ne ma yaay faatu ma naan ko fa ah, ah seen liggéey bi damay ñibbi de seen fii Sénégal dafa métti pour am liggéey mu ne ma non yàlla baax na après si la ñu commencé mu ne ma tu t'activer dans la politique pourquoi pas ma ko man la politique m'intéresse et puis man Ablaye Wade man daf ma mës a neex et tout ça donc j'ai toujours partagé ces convictions moom laa mës a théoriser parce que man mooy sama repère mooy sama idole bu ñuy wax fii idole man c'est lui que je cite en premier parce que moom laa fréquenté moom laa xam moom laa mën a témoigner lu baax donc euh, après si la ma nee ñëwal ñuy dugg di génn lu ne ñu wax wax ñu ko nag naan xam nga jigéen buy def politique rek day am beaucoup de préjugés ñu ñuy tuddal dëkkal fu nekk mais loolu yëpp man sama sama vraiment touché wu ma woon kii wu ma woon ba far par la suite entre temps après ñu jël ñu chargé de mission en réalité même Coumba Gaye bi muy nekk ministre on était quinze femmes quinze femmes la ñu woon ñu tuddoon ñu tuddoon fa convergence des femmes en action ñu bokkoon aussi ci euh, kii euh, les fédéraux kii euh, FNCL ñu bokkoon aussi fédération nationale des cadres libéraux fa la ñu bokkoon man mii j'étais présidente de commission euh, développement euh, yooyu mais après euh, bi ñu nekkee ni ñu koy waxatee Kumba balaa bi ñu ko doon jël sax isa man maag moom sama CV ñoo mën naa ne moo fa desoon parce que dañoo soxla woon ko doon def droit moom Kumba moo continué woon droit bi man j'avais fait science politique bu ñu doon dugg palais dañ doon wax les ministrables ñëpp ñu xamoon xam nga te Ablaye Wade macha allah daf ñëw bëggoon fonk ñu donc euh, loolu moo tax sax après ma mujjee euh, nekk cabinet Alioune Sow lay Wade mën naa ne daanaka daal moo tax ma xam Alioune Sow kooku laa mujjee cheminel ba léegi on a gardé de bonnes relations ma nekkoon conseillère technique am chargée du suivi des suivi des engagements di moom nag xale laa woon mais terewul mu ne ma seetee di ma jox ay mission yoo xamante ne mën naa ne comme comme ma ko waxoon autant du ma ko woon gëm mais ça m'a permis de de faire de mes preuves de relever des défis ma fekk fa nag ay nit yu may accompagner yu baax notamment le secrétaire général euh, actuel de du ministère de la santé monsieur Alassane moom ma njëkk jox comment euh, jë njëkk a yoon bi ni ñuy bindee par exemple les lettres administratives ma fekkaat fa aussi nit ku baax koo xamante ne actuellement sax mu ngi tudd Marie-Jeanne Yvonne Badiane moom kii la IGE la moom tamit mu may encadrer moom nag si moom laa nekkoon ba jàng lu bari bari bari bari ndax Alioune Sow ba ma njëkkee yegg si dana ma man kii moo fi sama yaay lu mu la wax nga def lu mu la waxul nga def kooku nag di ma teg ci raay bi ba may jël di porter ay mission yoo xamante ne macha allah di ko réussir. en réunion de coordination le ministre Alioune da doon toog di wax roy lent ci yaay Fatou parce que moom bu ma ko santee liggéey dina def ba def lu ma ko santul parce que day anticiper sur toute la fierté la woon par exemple en tant que ministre de la République muy lire sama discours di ko santee yàlla pour dire que ne ça a été une belle expérience. ci jamono Ablaye Wade donc ci nga nekkoon euh, chargé de mission ku ne xam ne ni jamono boobu euh, nguur gi neexoon na ci ñenn ñi. donc euh, ñu bëri amoon nañu ay ay ay millions on parlait de milliards donc yaay faatu est-ce que mën nañoo jàpp ne jamono boobu ci ñooñu la bokkoon ñi profité ci ci ci ci ci état boobu. Euh, man euh, xam nga lu mu mën a jàpp lu tax ma fonk Ablaye Wade tey man Ablaye Wade ñun dañ ko doon dañu dañoo bindoon suñu lettre ñun dañoo soboon bëri affaire ñun les les les femmes convergence en action dañoo bëri woon affaire fu mu tourné daf ñu doon gis. Euh, euh, moom bi muy njëkkee kii dañoo bind benn lettre ñu toog ne Ablaye wàdd daal dañoo remarqué moom moo ñu waxoon ñu dem jàngi ñu wuti ay diplôme mais bi ñu ñëwee di ko di ko di ko xawaalee kii quoi titiller un peu naan la femme de wala fille de moom lay nome loolu lañ ko doon bind bind lettre bi ndeysaan ñu santeel autant Awa Ndiaye Awa Ndiaye ne réyee bu bëgg a dee yéen li ngeen di nar a publier nii loolu foo leen ko teg ñu ne ko ah dañoo wax suñu dëgg parce que dañoo jàng ba sonno mais recruter wuñu léegi après moom mu occasionnel ñu rencontre ak ab Ablaye Wade bi ñu rencontre rencontre bi ñu rencontré Ablaye Wade ndeysaan dafa ñëw gis rek dugg si rek kontaan mu kontaan daal di ñëwaat daal di xaaral ma ñëw te bi ñuy dugg si ñu ngi doon wax ne amul jot on est entré je pense vers euh, ñu koy huit heures. lañ amoon rendez-vous ak moom 18h la ñu gis mu dem dem mu dem xaaral ma ñëw ndeke da doon annuler tous ses rendez-vous parce que il tenait à nous rencontrer à parler avec nous individuellement mu ñëwaat bi mu ñëwee ku nekk mu laaj la lan ngay def ma ne ma wax ko ku nekk wax ko ndeysaan après ñu tamit xam nga rek on était dans euphorie comme nit ñi ni ñu ko xalaatee ne Abdoulaye Wade day maye lu nekk ah ni koy waxatee mu ñëw ñu tamit ñu naan ko dañoo bëgg kër dañoo bëgg lii dañoo bëgg laa dañoo bëgg nga nome ñu mais langage bu ma tenir moo tax tey ma jàpp Ablaye Wade ba léegi parce que xam nga lu mu ñu njëkk a wax dafa ree daan ne man daal yéen jaaxal ngeen ma yéen man poste boo leen bëgg mën naa leen ko nome est-ce que xam nga bu ma demee ngeen dem ngeen yàq seen carrière vous dites que ne yéen da ngeen am ay diplôme et tout mais diplôme kese doyul il faut ngeen pratiquer c'est en ce moment là que ne lan moo doon idéal bi mooy que peut-être que ñun ñu jéem a nekk ci fonction publique fonction publique léegi ñu naan ko fonction publique mu naan gis nga nit il faut mériter sa salaire mu ni man loolu la ay xale ngeen jalul ngeen di daw bay daanu mën naa leen nommer fu leen fu leen neex mais fu ma leen nommer jàppal ne bu ma demee ngeen dem et bu boobaa yéen seen carrière da ngeen koy yàq moo si la ñu jàngal ne wax ñu nag nañu il faut savoir échelonner fonction publique ña fa nekk ñu ngi tedd mun ma ku nekk mu laaj la sa parent lu muy def man sama genre nga xam sama parent fonctionnaire la ah jàngalekat la mu ni ma est-ce ci ah est-ce que euh, toppatoo bu la ci est-ce que tu as manqué de quelque chose je lui ai effectivement j'ai manqué de rien maa ngi woon maa ngi woon ci condition yu baax a baax a baax mu daal ne ma gis nga kon donc dama yéen ay xale ngeen vous allez commencer par la fonction publique ngeen ngeen après ngeen échelonné seen bopp ngeen teg fa seen bopp fi ngeen war a nekk parce que man gëm naa ne ay kilifa ngeen war ngeen war a doon. donc man loolu moo tax man mënuma bàyyi ab Ablaye Wade di ko ñaanal yal na ko yàlla may wéex ak gudd fan yàlla yokk ko mu may ñu ci xam-xamam nit ku baax la nit ku fonk nit la nit ku fier d'être sénégalais. donc ci instant boobu la lépp démarré donc ci nga dugg fonction publique nekk fu ba léegi ci agence de développement local. agence de développement local effectivement fa laay nekk maa ngi fa nekk depuis 2011 euh, euh, mais au passage quand même euh, le mérite. Euh, d'avoir euh, cheminer avec Alioune Sow moo tax ma nekk fa. Euh, agence de développement local moom mënuma jàll sans pour autant me remercier aussi ministre Alioune Sow parce que suma chemin. mais mais mais mais yaa Fatou dafa mel ni wax bi ngay wax Ablaye Wade ça t'a touché parce que ñu ngi gis ci sa ay bët ñu ngi ci riir liir ay rongañ donc lan mooy waral heure booy wax ci Ablaye Wade tu craques donc c'est quoi en fait da nga. dundul ak Ablaye Wade dëgg-dëgg doyaloo ci moom daf la marqué c'est c'est c'est c'est quoi exactement. Ablaye Wade man euh, je l'ai fréquenté moo tax man mu bugguma ko ko de wax lu ñaaw bëgguma lu ko def lu ñaaw man boo gisee sax euh, man mënuma mënuma makki mënuma ànd ak Macky sax man loolu la parce que pour man da ko toroxal te waru ko woon toroxal nit ko baax la ko gëm il est il était fier d'être d'être j'ai participé à, à, des rencontres en France ñu koy jox honoris causa mais langage bu mu fi tenir dafa mettre tout le temps le Sénégal en avant te man loolu laa gëm je suis fière d'être sénégalaise et ñun suñu suñu suñu suñu suñu lu ñu fi ñu fi ñu doon moom da ko doon prôné fu mu mënti doon ah y avait le leadership du sénégalais man moo tax dama naw Ablaye Wade dama ko fonk parce que dafa ñu gëm moom amoon na ay temps ñu koy reproché naan palais euh, ni ñu koy waxatee palais palais comme marché mais les gens n'ont le discours bi mu ñu doon tenir mooy tout Sénégalais a droit à l'accès au palais te loolu lu mu wax dëgg la ñun ñoo ko moom palais bi ñun ñoo ko moom quel que soit alpha ñoo ko moom parce que ña fa nekk ce sont juste nos représentants. voilà dafa defar ay ndaw yu bëri ci Sénégal door a dem ndax da nga bokk ci ñu mu defar. ah man de defar na ma man de maa ngi koy sant di ko gërëm encore une fois te mënumaa fàtte loolu j'ai pas occupé ay postes yu am importance mais en tant que xale mu faale ma man personne lambda toog waxtaan ak man. ah jox ma ay conseil macha allah te terewul joxewul ci euh, yemul ci conseil yooyu de gis nga euh, yi mu joxe woon conseil kenn appliqué ko kenn toppatoo wuñu mais moom ci boppam ba ko yëgee dafa jël ay ay mesures en conseil des ministres mu tudd ñu ñun te pourtant la plupart xamul leen woon pour dire que man humanité moom mooy touché ci ma moom di encore une di ko sant di ko. gëmee woon ndaw. ni mu woon ndaw ak jeunesse bi mais les gens l'ont mal tellement mal compris ba je pense que actuellement ñu ngi koy regretter. Parce que actuellement, on a besoin de leadership. Il nous manque de, de leaders dans ce pays la J'ai pas peur de le dire. C'est man li ma gis nii man on je suis pas presque pas fière d'être euh, damay des fois damay parce que on vaut mieux man c'est ça ma conviction. alors Ablaye Wade par exemple euh, euh, tey buy jàkkaarloog yow nii di la seetaan ci Setsima TV message bi nga koy lance lan la. ah en tout cas je suis fière. mu nekk sama président il le reste toujours il sera moo président de cœur et dans la tête ça moom euh, dama ko koy wax parce que nit ku la woo xamante dafa am xam-xam ah am reconnaissance ci nit fonk nit et fii li ci gën a am importance mooy doon jéem a euh, positionner Sénégal au niveau mondial man loolu laa jàpp ne man loolu moom la gëm moom la xam et il est fier d'être sénégalais il nous l'a montré kon nan la fiy toog bu doon bu doon par exemple fonk suñu réew bi je pense que ne comme les autres présidents dañuy dem wuti ji leneen mais moom mu ngi fii day dem ak ñëw peut-être pour des raisons de santé moom moo tax muy dem mais mu ngi fi mu ngi fi mu ngi fi ak ñun ah lu xew mu ngi taxaw te màgget na mu noon na toog jouir de de de sa retraite de sa je vais dire belle retraite sax parce que moom ñëpp reconnaître nañ ko actuellement que c'est un bosseur je pense que ñëpp koy reconnaître ñëpp il manque c'est ça que je vais dire te lenn rek laay xam moom euh, lan lenn rek laay laa leen di benn anecdote boo xam du ma ko fàtte mu ko am na photo bu ma ànd ak moom photo boobu ndeysaan dañoo toog ba si yàgg may photo wu ak moom rek mu daan ne ma euh, yow 12000 ngay fay ma ne quoi mu xool xool gauche xool droite jaaxle du ma mooy wax ndekete moom mooy wax en fait il faisait exprès buy photo wu ak yow dalay reetaanloo pour dire que il a fait des actes yoo xamante ne man mënuma ko fàtte kook nit la et c'est le modèle bu may wax modèle man sama doom loolu laa koy wax sama doom moom rek la xam sax comme président parce que dama koy louer tout le temps Abdoulaye Wade la muy jot di def lu mu ñu defal ak fu mu moom moom la xam boo ko waxee koy sa président moom tamit il va te dire la même euh, mu def yëpp nga gis PDS mu jéem yi est-ce que neex na la. neexuma neexuma benn yoon maintenant nag euh, en fait on n'est pas le PDS du premier parti pour pour dem nii parce que même dans les autres pays aussi c'est pareil. Euh, parti bu bu bu daanoo dans un premier temps c'est normal c'est normal que ku nekk euh, je sais pas mu tas ak yooyu parce que PS ba léegi macha allah arrivé wul à à se structurer. foo demee ci yeneen dëkk yi aussi c'est pareil pas évident parce que chute moom chute rek la mën a tudd. mais Abdoulaye Wade dafa liggéey lu bëri nga gis ñi mu nekk ndoolool ñëpp juste après dem nañu rallier wu donc euh, ñu waroon a téye héritage u ñoom ñoo dem rallier wu donc ñu ngi ci euh, benn Bokk Yaakaar léegi est-ce que Yaay Fatou dafa dem. Yaay Fatou moom mënul dem. man mënuma dem et puis ñi dem aussi je sais pas pour quelle raison ils sont partis mais man de nawuma leen ci parce que liñ fa am ci APR je ne pense pas que ne amal na leen njëriñ amalu leen benn njëriñ hmm. oui parce que euh, on peut pas euh, tout le temps vivre le, le, le bonheur on peut pas aussi être tout le temps dans le malheur je pense que loolu la dina di wax fi de mahal al usri yusra donc à côté du bonheur il y a toujours le malheur boo nekkee ndaw surtout pour les je parle plutôt si jeunes yi boo nekkee ndaw je pense que jarul ngay yàkkamti li nga war a doon tôt ou yàlla moo lay fal du nit moo lay fal donc man loolu je pense que ñoom ñëpp dañ ci dañoo desservir seen bopp parce que sur le plan politique kenn ñi ci ñi ci valoir quelque chose bareetul et c'est vraiment dommage parce que y avait un bon potentiel au niveau du PDS au moins ñoo xamante ne maîtriser nañ administration wala maîtriser du ma ñëpp a bonoon du ñëpp a aussi mais quand même y avait de des politiciens yoo xamante ne samay xarit lañu xam naa bu ñu ma seetaanee <laughs> bu ñu paree dinañ ma woo. mais quand même je dis ce que je pense et j'ai pas manqué de le leur même aji loolu la ñuy waxaale sax ci actualité parce que temps gis benn image Omar ci oto Macky Sall taxaw ci oto bi di ko tàllal loxo donc mu nekk ay image yoo xamante ne bii da nga koy xool euh, les Souleymane Ndéné ñeneen ak ñeneen yoo xamante ne bi souvent donc Sénégalais yi dañu leen di xaw a euh, traité di te naka su noonu donc yow loolu noo koy jàngate en tant que koo xam ne dund nga ak ñoom biir PDS. Euh, awuñu ci benn mérite de parce que tey bu ñu amoon mérite je pense que ma Setsima TV dina daw dina daw seen ginnaaw dina daw dina dem seen ginnaaw pour interviewer la ak yooyu mais man pour man amuñu ci benn mérite parce que pouvoir neex na waaye de temps en temps avoir du recul nga xam lan moo la yëkkati ci pouvoir dafa am solo l'intérêt général int c'est vrai que ñoom boo waxee ñu ni seen seen seen militants yi ñoom ñoo leen ne pour mu ànd ak ce sont les réponses à donner Mais man je dis que c'est juste pour des raisons personnelles, crypto personnelles. Et moi, je n'adhère pas à ces euh, raisons. Parce que intérêt général, taille, taille, nous fall là, suba ñu folli la noonu lay demee àdduna bi nekk on peut pas plaire à. yaa faatu mënuñ koo gis suba mu dem APR. si loolu moo mënul nekk. yaa faatu vaar day am de ëllëg. <laughs> kon mu dem bu jaax parce que man samay xarit rek ñoo nekk ci pouvoir bi macha allah mais c'est pas pour autant que je euh, li ma jaaxal mooy da jege tout da nga jege état bi même su fekkee liggéeyoo ak ñoom parce que gis nañu keroog en pleine cérémonie euh, député maire bi nga xamante ne bii mooy euh, bu bu golf remercier la donc euh, di la remercier di la taggal ay louange ñëpp teg ci seen bët ah. déjà dama koy remercier parce que en tant que maire maire au golf sud je pense que man sama premier contact bi ma njëkk am ak mairie bi dama leen doon commencé di leen xas. boobu aussi je je salue salue loolu aussi si ci kii Facebook ma commencé di leen xaas et tout si le premier adjoint au maire si laa ko xamee si ma interpellé woo ma ne ma yaa ngi ñuy mais je pense que y a lieu qu'on discute ñu discuter parce que les solutions ñun ñoo ko war a trouver de ensemble après ñoom ils ont fait le déplacement pour venir jusqu'ici et depuis lors on a gardé de bonnes relations ils me demandent des conseils moi a mais non euh, politique moi je pense que euh, politique dafa am mais il faut savoir faire, faire la part des choses parce que man actuellement nii je suis un agent de l'État je travaille dans une structure de l'État au niveau de l'agence de développement local ministère collectivité territoriale développement et aménagement du territoire maintenant sama liggéey je je on vient en appui aux collectivités territoriales donc ñun dañuy partenaire nos ce sont les collectivités les communes les maires notamment les exécutifs locaux donc forcément ci cadre boobu lañu nekkoon di liggéey ak madame le maire mais wanewu ma fa benn yoon que ne dama bokk fenn parce que loolu yëkkatiwu ma woon bi ñu may bi ñu may copté on m'a copté en tant que agent ADL et je pense que l'apport que j'ai apporté c'est plutôt technique en accompagnement euh, et je pense que euh, loolu moom la ñu war a doxalee ñu ñëpp moom la ñu war a xalaatee. alors sa expérience effort technique yi ngay fournir et tout taxul euh, ñoom aussi euh, parfois bu ñu la soxla est-ce que mun euh, mënuñu loo xëy président Macky Sall soxla la. j'en doute fort ah je vais pas dire que j'en doute fort parce que ñi ko war ñi ko wër bëgg ci moom dara bari nañ trop te pare prêt à tout donc euh, et puis Macky Sall euh, bon moi je ne connais pas personnellement c'est mon président. Euh, donc euh, je ne pense pas que ça va se passer comme ça et même bu ma soxlaa dans le cadre du travail je pense que mën naa répondre dans le cadre du travail mais pour les aspects politiques moi je ne suis pas en mesure de le faire parce qu'on ne partage pas les mêmes convictions d'accord euh, yow ku ne xam ne nga am nga expérience ci politique tey jëlee ay perspectives yaa faatu lan la Euh, amicalement tout le temps damay tooñ madame le maire naan ko maa lay remplacer <laughs> en tant que euh, membre de l'opposition mhm. ma ne position bi neex na trop toogaay bi moom on peut dire que ne neex na trop mais quand même si le moment de m'affirmer parce que moi je suis convaincue d'une chose ah euh, si boo deful politique politique bi moo lay def on a tendance à critiquer tout le temps nos politiciens parce que naan mënuñoo mënul waaye dafa yomb. kon mën nañ la xaar ci bu Golf ëllëg. pourquoi pas. pourquoi pas. mais du doon ak jamais ak APR jamais. parce que mën nañ la xaar ci Ousmane Sonko. Euh, Ousmane Sonko du ma Ousmane Sonko bien vrai que sama mbokk Gaston Berger la et puis moom ay mil ay euh, nu mu tudd membre parti am yu bëri waa Gaston Berger lañ samay xarit lañu mais moi je suis pas Sonko moi pour le moment je reste Wade. je reste. malgré que PDS amatul ah. Euh, on peut pas dire que PDS amatul. Hmm. parce que PDS xam nga lan mooy forum mooy dafa am des les gens du du parti PDS de cœur. ñoo xamante ne moom la ñu xam moom la ñu bëgg waa Ablaye Ablaye Wade neexul la bañ xam nga actuellement nii bu ñëwoon fu mu bokk ñëpp ñëw. waaw mais euh, kan moo jiite PDS. Euh, <laughs> je suis pas Karim par contre. je pas peur de le dire je suis pas du tout Karim euh, je suis pas Karim parce que man pour nga mën a nekk sama njiit sama leader il faut que nga wane ay preuve il faut que nga engagé wu il faut que nga def loo xamante ne man dina bokk ak samay idéologie samay conviction parce que bëggoon naa euh, wax foofu parce que gis nga nit ñi dañuy confondre mhm. gis nga moi je suis boiteux mais c'est parce que j'ai pratiqué l'homme et l'homme porte une idéologie mais man euh, parti politique autour d'une personne il faut qu'on arrête ça parce que le parti en en le parti en particulier ay nit yu bokk ay conviction la idéologie loolu la war a constitué wu mais comme ni ñuy defee parti politique man man man je loolu man kiiwuma j'adhère pas du tout parce que ça tourne autour d'une personne nu nit ki def neex na ko moi ça me dérange personnellement parce que man je me dis que Euh, euh, man ki may jiite leader lay doon. d'accord léegi bu ñu doon xaar yaay Fatou ci député maire wala ñu koy xaar ci leneen toutes les façon du doon ak mouvement wu boppam moom mm, parce que am na ñoo xam dañuy créer mouvement mais toujours PDS lay doon. Euh, dina nekk mën na nekk PDS. je mën na nekk PDS parce que man génnuma PDS. c'est vrai que je fais plus partie de la FNCL. ba ah, waaw bokkatuma ci liste yi mais bon man génnuma PDS mais aussi euh, j'arrête pas de vous dire que j'ai cheminé avec un homme que je respecte ku ma ku respecte ba pare moom mu jox ma cër aussi muy Alioune Sow donc je le cache pas j'ai pas honte de le dire et je le dis haut et fort man fii tous les hommes ñi fi nekk politiquement yi nga xamante ne ñoom laa gën a proche c'est Alioune et man euh, je suis j'ai acheté ma carte de membre et je cotise régulièrement donc. Euh, malgré que ci état bi ngay liggéey. malgré ci état bi lay. ngay wax ne ça doit être danger. pourquoi mu war a nekk danger c'est ma conviction une conviction on peut pas la départager d'une personne bu ñu ko xasee ba dindi rek kooku nekkatul nit. donc c'est ma conviction ñi ñëpp sama bureau je remercie au passage sama directeur. sama directeur général ki est koo xamante ne ni ma mel da ko accepté. il euh, accepté na ka moom tamit nangul na ma ka. mais du caaga ni moom tamit lu muy def je pense que dina ci waxtaan ak man ma jox ko ci samay li ma ci xalaat ñu partagé ñu part ñu partagé wax des fois ñu mu am mu am tuuti polémique wala ñu ñu am ay réero mais n'empêche on est resté de grands amis parce que tout simplement il, il me reconnaît une chose sama franc-parler ak samay conviction ak aussi sama gëm-gëm. d'accord yaa Fatou li ñu jagleloon ci waxtu bi euh, jeex na euh, pour tàggatoo kan ngay gërëm. Euh, maa ngi leen maa ngi leen di jee vous je vous remercie pour avoir choisi sama modeste personne man yaay Fatou waa Setsima euh, di di saluer yéen li ngeen di def am na solo am na solo parce que loolu rek lañ fi am. je pense que non leader leader. Mm-hmm. ñun on nous impose des actuellement. mais man li ma gën a xam mooy que ne leader da nga koy ràññee. da nga koy ràññee nga xamee ko nga dem ci yow t'as pas besoin de te proclamer leader. Mm-hmm. leader dañuy ñëpp lay ne fekk di toog si groupe. ñu choisir la en tant que leader ma noonu la ñuy choisir leader donc euh, maa ngi leen di maa ngi leen di remercier euh, di saluer aussi seen clairvoyance sur beaucoup d' aspects léegi maa ngi nuyu aussi di sant di këram sama yaay ak sama papa ah di parce que ñoo ma jàppale ah lu ma lu ma def neex na leen <laughs> di sante aussi samay xarit ah j'ai mes amis ah, avec qui je partage mes délires je vais dire ak samay convictions ñoo bokk ñuy ànd ba léegi les membres de de la convergence des femmes en action ñuy ànd ba léegi macha allah di sant aussi euh, bépp euh, kilifa yi. kilifa yi kilifa réew mi yëpp di leen sant di leen gërëm parce que je pense que ñooñu ñaanal te xam naa ne ñaani man bokk naa ci même bu ñu ma xamulee particulièrement di leen di ko sant di ko gërëm di leen gërëm di euh, di remercier ñëpp daal en tout cas <laughs> di remercier sama jëkkër <laughs> sama tout à fait di ko remercier parce que moom moom moo may poussé à aller de l'avant franchement il m'a tout waa moo may yokk jom moo may poussé à être de l'avant parce que moom c'est un homme public donc euh, dafa may boole ci lu bari di ma chaque jour di ma jàngal ne ma nii la bu ma ragalee mënu ma lu tax ngay ragal tu as tout ce que ni am nga lépp am nga les compétences am nga lépp il faut aller vers et sa gëm-gëm di ma jàppale c'est pas facile de faire de la politique et pourtant lui il me pousse à faire de la politique donc euh, donc di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal moom tamit fu mu nekk mu am fa ay ndam ndam yu ndam yu kawe kawe kawe. jërëjëfati donc kooku moo nekkoon yaay euh, Fatou madame Mbaye euh, ci seen émission leader référence nga xamante ne bii nag ndeysaan partagé nañoo ak moom tey jile nettali nañu lu bëri ci expérience waaye tamit gën ngeen a xam ne également référence la di ko sant bu baax di ko jaajëfal ci dalal bi mu ñu dalal macha allah fii ne ci.